yaa zal jalaali wal ikram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa nuyu mbokki jullit di nuyu nuyu lislaam di nuyu bu sell waaye di ñaan borom bi subhaanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande ak njéggal ak suñu borom subhaanahu wa tabaraka wa taala waaye comme niñ ko baaxoo di defee ñu dellu si waat ci suñu jotaayal yóbbalug ndaw ñi muy jotaayal xam-xam waaye di jotaayal fàttalikonte ci sunu wàllu diine mu mel ni nag sunu xoolee suñu jotaay bi mujj ñu ngi doon jàngale lu aju ci wàllu waxtu julli yi fa muxtaar ya tàmbalee ba fa mu yam ak fa daruri yi tàmbalee ba fa mu yam kon mu mel ni nag sunu bind pay dañuy jël lan mooy ruutu salaat yi bu génnee ci waxtu dañuy tàbbi ci julli ci boppam moo ab bunt la fii su ci sarti julli yi xadintahaa fii la yam alkalaamu wax ja fil awxaati ci waxtu ya falaana nan sarifu kon ñu soppi ko salaati jëm ci julli kon daf lay wax ne rek kon lam la doon jàngal ci waxtu julli ya fa tàmbalee ba fa mu yam ak la ca aju kon fii la yamale wax joojee léegi nag mi ngi wëlbatiku jëm ci lan mooy sartu julli ki bëgg a julli ay sartam yi yi tax julli gi wér yan ak yan la kon dañuy bàyyi xel rekk ci waxtu yi doon jàngale ak nañ ko doon jàngalee ci wàllu julli mel na ni suñ jamono jii am nañ ay jumtuwaay yu doy yoo xam te ni daanaka at mi mën nañoo xam waxtu yi fa ñuy tàmbalee ba fa ñuy yem muy waxtu julli ak heure yi muy doon ak yëpp kon suñu boom def na ci ak jàppandi ak matuwaayu jamono ji kon xam ko lu am solo la ci ab jullit ndax bokk na ci liy dundal xam-xam bokk na ci liy sàmm xam-xam kon lu am solo la amma salaatu ndaal julli fa surutuha bokk na ci ay sartam tahaaratul xadas mooy laabug xadas summa tahaaratul xabas topp laabug xabas fi saw bi ci mbalaar wal badani ak yaram wal makaani ak barab wa suturatul xawrati ak suturaal xawra bil kitmaani ci nëbbu mu nekkoon bokk na ci sarti julli mooy nga am ak laab buñ ne ak laab nag mu séddale laab yi ñaari laab muy laabu yaram ak lu jëm ci wàllu yére yi ngay sol bu ne laabug xaadas nag mooy laab gi nga xam ni kon mu ngi aju ci wàllu jëmmu nit ki bu dee laabu xabas nag mi ngi aju ci wàllu yére yi nit ki ak barab bi muy jullee ak sutura awraam ak yu aju ci yooyee kon nit ki bu bëggee julli war na ci moom ndax buñ nee as surut mooy sart mooy li nga xam te ni mooy wéral julli gi buñ nee julli dafa am lu tax julli gi war a mën a wér loole nag mooy surut ya mooy sart ya bokk na ci kon nag jëmm ji laab ndax boo boo laabul doo mën a julli moo tax mu ne war jëmm ji war naa laab ci ay ci jëmmam bu dee dafa war a sangu farata mu fexe ba sangu farata su ko defee laab ci yaramam bu dee dafa war a jàpp mu fexe ba jàpp laab bu dee dafa taq ci yaramam sobe mu dindi ko te loolu lépp nag mi ngi koy defee ndox ma nga xam te ni moom la war a jàppoo ndox ma na muy setee ak na muy mel ci ndox meemee la ko war a defee ñaareel ba mooy laab gi nga xam te ni moom la war a laab ci ay yëreem boo amee sobe mu raxas ko bu dee barab ba muy jullee tamit dafa war a laab te dafa war a tamit suturaal awraam maanaam sol yëre yoo xam dina jot ay awraam nëbb ko dina ci ñëw ci kanam wastaqbalil xiblati wastaqbilil xiblati xibla <coughs> wastaqbilil xiblata ak jublu xibla mooy jublu penku watarukil kalaam ak bàyyi wax wa kullu fixlin ak bépp jëf lil munaajaati salaami ngir day lenteeg boroomam mi nga xam te ni mooy aji jàmm ji bokk na ci it sàrt julli yi mooy jublu penku kii julli dafa war a jublu penku penku nag buñ ko waxee mooy jublu kaawa ga kaaba ga bu doon koo xam dafa nekk ca kaaba ga day jàkkaarloog ak kaaba gi wet gu mu mën di taxawee rek moom la fexe ba jàkkaarloo kaaba gi moo xam ndeyjoor la moo xam càmmoñ la moo xam saw la moo xam penku la amut daanaka kaaba gi rek mooy penk fu mu mënee taxawee day fexe ba jàkkaarloo kaaba gi bu dee nag ku nekk feneen fulut foofu it na fexe ba xool penku ba ba mu féete mu jàkkaarlook penku ba te tamit ki julli bokkoon na ci ay saatam mu bàyyi lépp wax joo xam te ni bokkut ak julli ci biir julli gi bépp wax bu ci bokkut rek mu bàyyi ko ndax boo waxee bépp wax bu bokkut ak julli te tey ko rek julli ga boo jubluwut xibla tamit julli ga day yàq wa kullu fixlin mu ne lil munaajaati salaam ak bépp jëf boo xam te nii rek aajowul ci ci biir julli gi mi ngi mel ni ci misaal nit kiy julli di dem fee di déplacé wu donte tourné wut ci ginnaaw mi ngi jublu penk bi waaye fu nekk man fay dem di jaabante dem ak ci kanam ak am ci ginnaaw ak yu mel noonu jëf yooyu day yàq julli gi jublu penku gi nag bari na lool ay mbir yu ci aju ci nit ki bu ñëwoon fekk di julli fekk penku ba dafa mooy ni mu war a def bu doon koo xam day julli xaw a mooy penku ba tuuti nga xam ne penku baa ngi nii ci ndeyjooram mu xaw a dem ci càmmoñam tuuti mooy ko di julli ba ci yàgg mu mel ni nit ki dafa ñëw ne ko penk bi kat mi ngi nii kon bu boobaa du jar muy dagg julli gi waaye day wëlbatiku rek jublu penku day wëlbatiku tuuti daal jublu penku ba kon bay na ci aju ci wàllu jublu penku ci nit bu jullee ba pare fekk jubluwutoon penku ndax dafa war a julliwaat wala yu mel noonu bari na ay sew-sew yu fa nekk mu ne li xawratu rijaali wa xawratu rajuli awraay góor duuna may nin li lu dul fen maa mooy la nga xam te nii bay na suuratin nekk na ci diggante jumbax ba waruk ko ba tey ni ba ci bëti oom ya parce que waxoon na la sutura sa xawra bokk na ci sart julli yi moo tax mu lay wax xawraayu góor fa tàmbalee ba fa mu yam ak xawraayu jigéen fa mu tàmbalee ba fa mu yam mu ñëw nag ci góor mu ne boo bëggee xam surtout daal sa xawra googee ma la waxoon awraay góor ma nga tàmbalee ca lu dalee ca jumba ba ci ay bëti óomam bu dee góor loolu mooy ay xawraam loolu war na koo sàmm sàng ko ba nga xam ni du feeñ mu doolu julli kon xawraay góor moo gën a gàtt ci ab tënk niñ koy waxee li nga xam ni góor moom lay muur ci aw yaramam la tàmbalee ci jumba xam ba ci bëti oomam ba ba ci ba ci ay bëti oomam rek la yem waaw kon mel na ni moo gën a yem ci bu doon jigéen lim war a muur ci aw yaramam kon jigéen moo gën a bari lu muy muur ci yaramam bu dee ci góor gi kon góor loolu rek mooy xawraam buy julli kon loolu la war a fexe ba muur ko ba nga xam te du feeñ waaw bu ël bu muuree loolu ba nga xam te ni du feeñ rek boobaa mel na ni muur na ay xawraam waaye nag sib nañ koo xam te ni dafa muur loolu dong nga xam ne tey ci misaal dafa soloon tubéy tubéy ju mag daal di koy wo woog tubéy ji ba nga xam ni muur na ci mboxam ba ci ay bëti oom xam ne kon moom muur na ay xawraam di julli kooku moom muur na ay xawraam waaye def nañ lu sib lu ñaaw ndax lislaam sax bëgg lu lu rafet waaw noonu mu def noonu baax na waaye dafa ñaaw kon lu ñu la bu jullee teewul julli ga dina baax waaye sib nañ nag nam nam def kon daal nit ki war naa buy dëylanteeg boroomam rawatina lu mel ni wàll julli mu sol yére yu jot yu set yu xeeñ yu neex ci anam wu rafet julli ci julli gën a rafet bokk na ci ay teggin julli bokk na ci it di euh, màndargaal lu ku fonk li muy def la ku hmm, fonk li muy def la ne nag am man nisaa un daal jigéen yoxaddu def na lim xawratan xawraam fa jamiau al ci mooy mboolem yaram wa da la daa jil xel mi fa borom xam-xam ba illa allazi lu dul la xam ne istusni setteef na ko minal ni ci ñaari tenkam ya wal wajhi ak xar kanam ga doona rëx si lu dul bopp ba war jëlay ni ak ñaari tànke mel ni kon bu dee jigéen lan mooy ay xawraam jigéen moom kon ay xawraam nee na mbooleem yaram bi xawra la fa jamial jism mbooleem yaram bi yëpp xawra la lu dut li nga xam te ni mën nañ ci bàyyi mën nañ ci génn liñ ci génn nag mooy ñaari tenqam mooy ñaari loxoom yi tàmbalee fa muy takkee ay jara montor ba fa cati baaraame yam loolu may nañ ko ko ak xar kanamam xar kanam gi tamit may nañ ko bañ koo muur mooy xar kanam gi ak waaw mooy te ay tànkam ak xar kanam kon jigéen daal yaramam bi yëpp xawra la kon mu mel na ni kon li ñu doon wax ci góor li muy muur ni ndawee kon jigéen moo ko ëpp li muur kon jigéen bu doon julli war naa muur awraam ah, te tamit li muy sol bu mu xat te tamit bu bu bu mu yaraax bu yaraaxoon ba nga xam te li muy sol daanaka moo ñàkk sol yére yam kon boobaa julli gi du baax kon war naa muur yaramam fexe ba sol loo xam te ni du xat rawatina nag tamit sol loo xam te day yaatu ba nga xam te du yaraax fat lu fat ba nga xam te ni du yaraax kon loolu bokk na ci yi tax ak julli julleem wér li ma li ma daan wax léegi mu ngi noonu kon bokk na ci li wéral julli jigéen mooy muur xawraam comme li doon wéral wéral julli góor kon ñoom ñaar ñëpp war nañoo fexe ba muur seen xawraam mel na ne sarti julli yi ñëw na ak tamit li nga xamta ni mooy xawraay góor ak li nga xam ni mooy xawraay jigéen kon yaakaar naa ne war nañ koo mën a yemale foofu beneen jotaay bii di ñëw ñu yeggale li aju ci liñ sub ci kuy julli ak sobe bu taqee bu la taqee nis ko a dindee ak lu aju ci loolu ko defee ñu yeggale bunt bi aju ci wàllu julli sarti julli incha allah rabbi ci jotaay bii ñëw kon ngi ñaan suñu moom dafa ñu taw tawfeex di sant it mbokk yi nga xam te ne dañuy faral di teewlu jotaay bi yëpp leen jox seen ci waay leen ñaanal jàmm ak njëgal yàlla di ko ñaanal bépp jullit di wax lu ci yàlla la lu dëng ci jëm yu xeeb yi la muy jëm doomu aadama in uridu illa al islaaha mastataxt ma tawfiqiya illa billahi al alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Bébé